c'est que. ku li kay faali joom ma jigéen jaay maram war ma jigéen jaay la ba joom ma jigéen jaay sa maama takka def romb maama saa dajee dameel xare na nangu na dama ñaar dara ba pour yow yow mu ngi defee di ko man ma sa maa saa ko ko di ñëw bonsoir bonsoir bonsoir Jangan ada yang berapa, jangan ada yang berapa. Bola jàppee mbooloo mi dañu ko benn bopp xam nga ni loolu dimbale ñu toog parce que ñaari wax yi daal daal mel na mel na ko rek ngir yàlla rek kaay mel na ngir yàlla kaay kaay kaay doy leen waay dañuy wax xal ñoo ma jigéen jaay maram boor ma jigéen jaay loxo ñoo ma jigéen jaay sama waaw bisimilah ñun dara ko. waaw jigéen ceeb ak damay damay daal di leen amal sa baa ngi ne toog moom tamit ñëw waaye ñu ne ñu ne ko léegi ci jotaay bi toog. den peeroon ci jotaay bi toog. jërëjëf ci jotaay bi toog. waaw waaw waaw salaam deux minutes rek salaam jërë ngeen jëf xool seddatu na guy li naan penalty ba ca Sadio Mané buñ ko woon coupe bi du ñëw penalty ba ca Sadio bu ko woon coupe bi du dugg Sénégal waaye ngeen xam ni boo tuddee baay kenn du mer soo tuddee yaay kenn mer soo tuddee mag kenn du mer soo tuddee nag tubarkalla mbokk kenn du mer eh doom ji mbaa yéen may dégg gannaaw sa ñaar may dégg Moussa ana waa Ramdaan yéen may dal yéen may dégg ak ana doom man ñëpp la ko waxtaan. waaw c'est bon maa ngi. Astou Kayre. Astou Kayre. am na ni li mu waroon def diggante moom waa ni ah tubarkalla moo tëddee ko. lii nga ma sonal waay. Thank you. Bokk waali balla ko seet amadi déglu too waali dara nañ déglu bajaan sa tura waali nañu déglu yow ku ngeen waali dañ bi ñaari ñu déglu ñu def dox ay waay nañu déglu waay nañu déglu ay waay ah iman Mansour Ndao nee na nañu jàng benn fatiha yaa ngi salaatul ala nabi fu waay mën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

97 guddi gi day neex kër gi day neex gale bi day neex ay neex féppay dëgër kay